ci seen beneen actu du amee internet yu 24 actu yu bàkk ba jibatina la ñuy waxtaane tey di situation mbas mi lëmbe mim réew di covid 19 tey ci altine ji yam ak juróom-ñaari fan ci weeru septembre bi ñu nekk Sénégal nag daal nay def lu toll si junni yu toftal juróom fukk ak ñaar ci ay test yu ñu amal ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ci daal di ñëw positif maanaam amee jàngoro ji ci biir loolu fukk yi ak ñaar nekk ay cas contact fukk yi ak juróom nekk ay cas issus de la transmission communautaire maanaam cas yi nga xamante ni kenn xamul ki leen ko wàll gox ya mu feeñ nag bokk na ci Dakar Plateau am na ci ñetti cas Mariste am benn Risatol am benn Grand Dakar am benn Liberté 1 am benn mbaaw am benn Thiès am benn Kédougou am ci benn cas téeméer ak fukk ak juróom ci ay patients yu hospitalisé woon daal dinañuy wér fanweer ak juróom-benn moom la ñu am ci ay cas grave ñu leen di ñaanal rek ñu daal di am tan démb ci dimanche ji naka Sénégal amaan na lu toll ci benn décès bi mbas mi duggee ci réewum Sénégal naka ak léegi kaa yi mu ngi toll si fukki junni ak ñeent yu toftal fukk ak ñeent ci ay cas moom la ñu daal di déclaré positif fii ci mim réew ci biir loolu fukki junni yi toftal fanweer ak juróom-ñaar daal nañ ciy wér ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ñoo ci ñàkk seen bakkan li ñuy saytu nag ci lali hôpital yi ngi toll si ak juróom téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñu leen di ñaanal rek ñu daal di am tan ministre bi tamit di wéy di ñaax askan bi ñu daal di fonk loolee nga xamante ni nii mu di mesure barrière yi kër docteur digle ngir ñu mën a xeex jàngoro ji lëmbe mim réew di covid 19 jàngoro ji lëmbe réew di covid 19 taxoon ñëpp amoon njàqare li ci màggalu Tuubaa gi tax nag démb Serigne Bassirul Abdoul Khadr Mbacke doon amoon jano ak taskatu xibaar yi fële ca résidence bu Xaadimu Rasul ngir xamle ne màggal gi dañu koy def waaye teewul kii di Serigne Mountakha Bachir dafa daal di digle rek ñu daal di respecté waale li nga xamante ni nii moo di mesure barrière yi kër docteur digle ci noonu rek Serigne Mountakha Bachir joxe ndigal ngir bi ñu murit yi daal di dajale lu tolloog juróomi million ci ay masque ngir nga xamante dañu koy soxla ci màggalu ko Tuubaa gi ndax ci xayma juróomi million ci ay doomu aadama ñooy daje ci dëkk bi sell di Touba ba tax rek mu daal di joxe ndigal ngir ñu dajale lu tolloo ko juróomi million ci ay masque ngir ñëpp mën a am masque ci màggal gi takk ko lépp rek ngir xeex jàngoro ji di coronavirus Serigne Bassirou Abdoul Khadr naka daal ne lépp da doon am maanaam cérémonie bi nga xamante ni dañ koy def buñ màggalee ba ca suba sa bi loolee yëpp du am ren ndax jàngoro ji lëmbe mim di Covid 19. ba tey rek ci kàddu Serigne Bassirou Abdoul Khadr yooyu lee daal dina yëkkati nag ay kàddu sant daal ko koy jëmale ci njiitum réewum Sénégal ngir xam ne ne tànqam luwul benn yoon lépp loo xamante ni nii rek ay projet la yu ñuy def ci dëkk bu sell bi di Touba moom njiitum réewum Sénégal mi ngi ciy dugal loxoom bu baax a baax ñu daal di wax ci leneen ci ay mbënd yoo xamante ne nii yu méttee métti yu askanu Sénégal di dundu jamono ji mu di taw bu métti bu ñu nemmeeku euh, ci weekend bi daal di def nag ay dégâts yu bëree bëri daal di def nag lu toll si juróom benn doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan bi ci gën a métti rek ci yooyu la gaañu bokk na ci benn membre euh, Croix Rouge daal di ñàkk bakkanam ngir da doon sauver nag benn femme bu courant laaloon mu ngi wuyoo nag ci turu Dame Diop Diagne ma nga dëkkee ci Léona Rufisque Ouest li ci gën a métti rek moom Dame Diop moomu benn doom la woon rek ci yaayam nekk na ndaw boo xamante ni nii koñ ba mu dëkk daal dañ koy apprécier bu baax a baax ndax disponibilité ndax gis nañ ne jëye yu mel ni yu bëri bu amee moom daam Diop dafay ñëw ngir di sauver ñooñee nga xamante ni dal na leen nag yàlla dogal nag bi muy sauver ndaw soosule ci la daal di ñàkk bakkanam ba ndaw soosule nga xamante ni doon na ko sauver sax moom mi ngi nekkoon ex jabaru euh, centre boobu lay du dun njaay méng moom nag Dame Diop dafa daal di ñàkk bakkanam ñi di ko ñaanal suñu borom jéggal ko ay bàkkaaram suuf nag daal di woyof ci kawam ci mën yooyu nag la ñuy daal di desandi ndax gis nañ ne daan nay laal quartier yu bëree bëri ca Ndakaaru ba xale yooyu lay dëkkee ca di mer ba futt ba tax ñu daal di toj siège ba nekk fële ca Parcelles Assainies te dara warulu ko lu du mu metti mi nga xamante ni am na foofu foofule ca diwaanu Ndakaaru ba tax rek xale yooyu daal di mer ba futt ba daal di toj li nga xamante ni moo di siège APR ba nekkee foofee ca Parcelles ba tey rek ci mën mi ak jëy yi nga xamante ni mi ngi koy def foofule ca quartier ya nekk ca Ndakaaru ba tax Dakar dem dem dikk nag daal di jël ab dogal ngir ne dootuñu jaarati benn yoon ci banlieue bi ndaxte banlieue bi ndox mi da koo nangu lool lool ba tax rek Dakar dem dikk daal di arrêté trajet yooyu ñu doon def ci banlieue bi jusqu'à nouvel ordre ci mbënd yi rek ba tey ci la ñuy daal di dese ni ndax gis nañ ki nga xamante ni moo di njiitum réewum Sénégal daal di nay yëkkati nag ay kàddu ngir dimbali ñi nga xamante ni ñoom la mbënd mi laal ba daal di wax rek ne programme boobee nga xamante ni ni dooroon nañ ko ci 2012 2022 bi muy di loolee nga xamante moo di ORSEC bi kii di Aly Ngouille Ndiaye nag daal dina def naka démb ab réunion ngir wax ne danañ ko daal di door ngir jàppale ñi nga xamante ne nii ñoom la mbënn mi sonal lool ñu daal di koy jeexal rek ak Djibril Sadio nekkoon candidat boobee nga xamante ni moo ñàkkoon bakkanam ci examen yi ñu nekk ca saal ba mu doon defee nag examen te la daal di ab malaise nag daal di ñàkk bakkanam ñu xamal nañu nag bi résultat yi génnee moom Djibril Sadio daal dinay am li nga xamante ni moo di examen boobee mu doon def ci premier tour yi nag la daal di admis moom examen yooyu ne bu ñu sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay boobule di réew mi quotidien ci fàttali rek drame boobule mi nga amee woon ca Kounkané bokk ci région wu Kolda moom Djibril Sadio daal di ñàkk bakkanam ci ab malaise bu mu defoon ca centre examen yooyu le ñi di ko ñaanal suñu borom jéggal ko te xaare ko ca àjjana ya gën a kawe lii rek moo fi ruusandi woon amee internet yi dig dajalay doon ba ëllëg ak jàmm